waaye yàllaa ko indi kon nañ ko nangu ndax jaam day nangu dogal d'abord loolu mooy sama premier message di masawu waa marché bi yëpp ndax laalul rek maal maal ko du jaay am na leneen lu mu laal tuuti ci xàttum am na lu mu laal ci jën gis naa ay jigéen ñuy jaay jën ñu nga ca biir mbaar ma tegaat seen table commencé kon defe naa ne par solidarité sax mën naa wax ne ñu nekk ci marché bi ñëpp ñoo am tiis te loolu xam naa ne wax naa ko waaye xam naa ne ah yaakaar naa juumuma yàlla def na nag solution defe naa ne am na incha allah Sall may may ñu ko ñun ak jam ñaajo la woon ak ak ak Diourbel defe naa marché Diourbel bi kuy dem ñaari yaa ngi gis li ci des bareetul ñaar yooyu ñoo waroon commencé ndoo am na xam naa lu ci am ba kaw la commencé wul waaye yàlla def fan yi yëpp ñu ngi ci doon liggéey boobu xamuñu sax lii dana am ba liggéey bi sori beneen bi ci des bi may terminé mooy li nga xam ne tey son excellence le président nag Sall defal nañu ko ndax bi affaire bi amee Je ma waxee sax dépassé 300 yi nga wax dafa ma rapport bi ñu le bilan provisoire fait état de environ 450 ans man ci loolu la communiqué ci conseil des ministres parce que dama conseil des ministres bi occasion la pour man ma qui ci incendie bi président dégg ko conseil de dégg ko mën une décision tombé wati ci environ 450 cantines daal hmm. mooy bilan provisoire bi dafa ne nañu xool fonds de solidarité nationale nañu jàppale noonu nag du ma ko mukk te gërëmuma son excellence président doon ñaar dërëm sax doon ñaar dërëm sax xam nañ ne wax nañ ko suñu métti te bàyyi na ci xel ba jël ñaar dërëm yooyu jox ñu ko kon dañ duñu def lu dul sant ko di wut leneen bi ñu ko waxee environ loolu dafa décider ne fonds de solidarité nañu jox juróom fukki millions lancé woon naa appel nag képp fi ñëw jàppale leen ah. defe naa doomu Kaolack nga def nga ko par sa responsabilité ah. waaye ñu nit am nañ droit gërëm la ndax en tant que maire képp ku fi def ñu nga defal maa ngi gërëm moom Ndiaye rax ma dégg naa ñëw na fi ñuy def dinañu ñëw ah. parce que ay milliardaire nag nu milliardaire yi génn nag jàppale marché bi soxla na ñeneen ñi nga xam ne tamit ah. nekk ñu milliardaire te am as tuut te mën a ah. dimbale képp ku mën a dimbale ah. mën a ñëw dimbale parce que loolu mooy solidarité man nag en tant que maire ah maa ngi liggéey juróom benn million yoo xam ne dama merci beaucoup merci